Bonjour, merci Monsieur le Ministre. Il me revient de vous faire la lecture du communiqué 188 du ministère de la Santé et de l'Action sociale ce samedi 5 septembre 2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1313 tests réalisés, 67 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 5,10%. Les cas positifs se répartissent comme suit. Nous avons 27 cas contacts suivis par nos services et 40 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers que je vais vous citer. La commune de Tivouan en a 6 cas communautaires, Dakar Plateau 5, Thiès 4, Ziguinchor 3, les Maristes 2, Parcelles Asseni 2, Rufusque 2, Bambay 2, Bignona 1, Bambay c'est 1, pardon, Cité Kurgurgi 1, Gourbel 1, Fan Résidence 1, Kedougou 1, Kermassar 1, Liberté 5 1, Nyoro 1, Wokam 1, West 1, Passy 1, Sacré-Cœur 1, Saint-Louis 1, Saréa 1 et Touba 1. 128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce vendredi 4 septembre 2020 l'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 13 948 cas ont été déclarés positifs, dont 9 851 guéris, 290 décédés et donc 3 806 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie. Mangigoro, monsieur le ministre Dylan communiqué ministère de la santé et de l'action sociale tey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 li ñu tuddee kaa contact mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent fukk yi nga xam ne ñoom ñooy cas communautaire yi mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñu fuñ ko jëlee ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci gox yi may wax nii yi may tudd léegi Tiwaawoon am na ci juróom benn Dakar Plateau juróom Thiès am ci ñeent Ziguinchor am ci ñett Mariste am ci ñaar parcelle Rufus am ci ñaar Bambey Ben, Bignona Ben, Cité keur Ben, Durbel Ben, Fan Résidence am ci ben Ben, ben Liberté 5 Ben, ñoro Ben, Wokam Ben, Ouest Ben, Passy Ben, Sacré-Cœur Ben, Saint-Louis Ben, Saraya Ben, et Touba Ben. témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet si malade ñu entré won hôpital wër nañu bés niki tay dinañu génn bu ci andé fan wër ak juroom ñent ñu nga ci réanimation benn malade ñak na bakanam bésu demb aljuma ñent fan ci wëru septembre bi ñu nekk malade ñeneen ñi dess hôpital ñu ngi am tan ministère de la santé et de l'action sociale muy leen di xamal nek ci tay dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal jot na woññi fukki ak ñett ak juróom téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñeent junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak benn wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom benn ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana ñeneen ñu des ci hôpital yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaax ngeen gën a sàmmonte ak digle yi nga xam ne mu ngi koy joxe bés bu nekk ma bàyyi leen ak docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye direct directrice générale de la santé pour mu wéyal liggéey bi